Wakazi ni ukata Shukumari Wakazi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe safine meɗen safine tv to gonɗon ene gondiri ɗon ceerno zaki ousmane mo ndenɗori kadjel ko tijjano ko yettima ñalawma o waɗi 13 et 14 janvier 2023 ñalawma seyi sema abdoulbasir moutagaɗa ha e dendagal ɓesɗudal siyara mo ganduɗa ko ceero men ceero moutagaɗa ha sefoi radiallahu taala nu ene wayno dendagal fuurankoɓe fo nden ndi kono dendagal suurejo o ceerno zaka ousmane leyɗele ɗe mo kala tawɗo neɗɗo mum ala ko heddi so wona jonde nde ndene jooɗe jeyaɓe allah ɓe nen naata kiiɗo caali caali barkinki caggal nde yimɓe gummi hak yaasa cuɗuma baɗɗo fayi tan en darima hannde ko wiyete ko cérémonie officiel ceerno zakia ousmane mi juundata kono feewi kalda e bandiraɓe e ganda holto paaɗen e holno ɗum jogori waade gorko mo nden ɗore kaƴel allah jarama jarama ceer mosiotoya en calmi dendagal ɓeɓe gone dendagal hanki jarmba en kal ceer mosiɗo hay caggal jewte baɗade e jewte udi jewteɗe ko ceermen ceer hamid yarba allah jarama e jarama wirdama asoowi lawol tan haɓa haɓas ɗ fayi on arde gueɗeɗe caggal woni yewtere alhamdulillah rabbil alamin hannde en gari ɗo ceerno bacheru caggal duuɓi nayi ɗi en ngaraani ɗo caggal rafi godano ɗo hannde alde kadi ko aɗo tar barkinka no mbiɗa ni hanki sappo e dir hannde sappo e nayyi so alah jeemi inchallah ɗo en galle men luga taw ko ɗo waɗɗaani galle ceerno montuga ceerno bacheru montuga ɗa ha somal fotori taw koye galle mum hannde kanko woni denagal haari ko ɓesgu denagal uh, ɓesgu cheikh omar fouti kala ɗo mbawi wonɗade de kanko woni han hannde malɗo mawɗo hannde en gari ɗo en gari safine tv ene jogui kaɓirɗe e dowroƴe sammamoudo si gari kuñi kaari taw ne ari délégation ceerno hamid ceer feere gorko mo koñi kaari walla mo jooli yowiloɗe ɗo eɗen ɗo kadi e ngal ɗo dingiral saldio inchallah ɗum noon ceerno basi no en juutnotako ma en gaccu ceerno samba sy inchallah jokku golle saaha foof dulu en gadduno jeeyaɓe allah tawa ko ganduɗa hoorema e jeeyaɓe e galle ɓooɓe e galle gara mbaɗɗe ciɗi e nder galle saldio inchallah allah jarama on jarama ceerno basi bisimilla jarama ceerno taka ousmane golle ma joni peewi tubade kalana bandiraɓe tugue ñalawma hanki o adde e ñalawma hande o ɗon ɗum jogori yaarude ɗum noon ɓe leñol ngol kala hen keɓaɗo yo ar yetto safira tibi ko safira sekoumara ngam sanga ñam golleji so yirtima hamdoul basir mutiga ɗaha kaldunaɗo kono kala ko daña kene haale ceerno men ceerno mutiga ha jom ñaamo malango jinnaɗo so yirtima hamdoul basir mutiga ha mo ganduɗa ceerno zaka Usmana hande en darima ɗo e jalawgol basra dañen haalanoɓe en o jiyaɗa allah gurnama kono foti foof eɗo yaltuɗo adun toon to dakar eɗo wirda noon toon e duuɓi nogas e jeeɗiɗi woƴetta ɗo warta ɗo e luga holko hewno e hono ɗum waɗo eɗen jiɗi adduɗo hurtunoo ɗum ceerno zaka usmanallah jarama jarama ceer musidɗo mbaɗeni ko mbiɗani ko noon ma en garto hen so al jaɓi ha ɓuuro yajde kadi ma en ƴeew musidɓe so ganduɗa hata ko woodaɓe andeɓe gello walla ko jokkiɓe e nder seydi cheikh mo fudira tala hono wonɓe ɗo e nder leydi ha umiɓe to caggal leydi ko wayno maliyen sen dañi kamɓe foof ɓe garɗoɓe kawre men ɗo inchallah sala ƴettanɓe konaɗu ko kadi ma en ketto to banggue radio ɗo sa jaɓi inchallah sa mamoudo si inchallah jokku golle ma en garto joni sa jaɓi inchallah salamu aleykum wa rahmatullahi taala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 ci njiitalu Mawlana Thierno men Thierno suñu sëriñ Thierno Hamid Yoroban tey alhamdulilahi rabil alamin tey ñu ngi fii ci Louga ci ziyaara bi nga xam ne ziyaara Thierno Mountaga Daha bu Cheikh Alhaji Umar al Fouti yul radiallahu taala anhu la nga xam ne ki koy organisé di ko taxawee di Thierno Mouhamadul Bachir Mountaga Daha bu Cheikh Alhaji Umar al Fouti radiallahu taala anhu yàlla dimbali nañu 2023 mbir mi dekkaliwaat na ndax 2019 我奶奶知道。 Ah, fa tabaarakallaahu ziyaara bi arrêté woon ngir feebar bi nga xam ne moom moo jaaroon ci adduna bi yàlla dimbali na ñëwaat na ñëwaat nañ ci jàmm kilifa baa ngi fi wala kilifa yaa ngi fi yàlla tabaaraka wa sant nañ ko bu baax a baax ñu ñaan yàlla tabaaraka wa mboolem liñ fi jaamu yàlla mboolem liñ fi tudd yal na yàlla nangu ko ci barke alquran al azim jullit wuy si nañu ñu ci Sénégal ñu nekk ci sous bi lu mel ni Mali Gàmbi Guinée ku gis baas bi gis tànt bi gis jullit yi xam ne jullit ñi namoon nañu cérémonie bi namoon nañu ziar bi ndax di nekk ci ziar mooy ay jullit kenn ku nekk nga bàyyee ko nga déplacé ngir jëmmi yàlla ndax woote yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa nga ñëw. girlan lan wuy si woote subhanahu wa taala kon bu julli di dajawaate fii ni di nga gis xam-xam kanam bo xam ni gëjoon do gis te mënoo ko won gis fo koy gisee fi rek ko mu ne gisee moo tax ñu sante yàlla bu baax a baax ñu ñaan yàlla tabaaraku wa taala suñu kilifa yi yalla na leen fi yàlla yàggal yalla na yàlla nangu seeni ñaan yalla yàlla wéral seeni i cër yal na ñu yàgg ànd ak ñun ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh Oumar Foutiyou radiyallahu taala anhu ñi fi nekk ñëpp جابوتام لنج نكروتي نبوم في جس نخمو لنا شغلة جمل فجر رضي الله تعالى عنه مغيتي فنك انفجارون غير فاتل سنوام فاتل جنيدي نياني الله تبارك وتعالى مولم لتفتو يالنا يالا نقول نقول جرغن جم بني فكا باركو دوين عدين دوين تبارك القرآن العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum nutuɗa sabu nede naade mo amir al zaman sëriñ bi Modou Mbaye toogal tuuti toog ngeen di ngeen bàyyi suñu yoon di def Modou Modou bàyyi leen yooyu ngeen di def bàyyi leen ba ñu pare li ñu wax. suñuy wax umma gaadu minin kono an ka miiraaɗo ummanteede wokomo sirri ceerno haadi to ñooro dede min amadou haadino ɗo kañum jaɓɓotonomo ɗon o wawi seedaade hen ko yeewi ko yeewi wawo walillahi alhamdu

kono ndin jubbo woni ceerno seydour yuɓɓini halfudemo ɗum o moƴƴini ha yettude yetti hande o heeɓi duwawa ɗum yade min jeeyi toon ceerno cheikh oumar no sanki ceerno mukada waɗi discours weltini usra o fof la siyama ismu mukada ɗaha ko haala ceerno basiru koye yeeso mawni ko en naati on ɗon jiɗmi faamude ko anndinde on mo nootiɗon o onon fuuji yama won anndunoɓe kono wonɓe annda ceerno mumtada anndi min won ceerno bosir holli min ko poɗɗo dartede moƴƴere to allah ko wonduko e mawligo e on saha lumtinomo ɗum ko baba mum baabi amen baba mum cheikh tidiane o ceerno mumtada daha ولن يخلفكم سماء تكلت المهدي ɓe gollonidi kono golle fof e usra o e laawol ngol e hadara o omo heewi wiide kanko ceerno bachir mat hoko jamdumi e adduna seeɗa ko ceerno cheikh omar bouta aa sonan ɗum jogo mi suufi agere on o heɓi ɗi duwa o ɗuɗumi o heɓe mum ko ngandanɗa hoorema fallillah alhamdulillah الذين يرمون فيكون عن رسول الله يحبون وسمى وين بها يكون عن وين فالربوبية mawniraaɗo ɗo so duwima miñiraaɗo tan koko jaɓa won liggiɓe gooto so wettinde on tan holmo ngarɗon ƴeewde o hol kañum Fuuta ziyaara gasi mawɓe fuutankoɓe fof ngari wonde mo tahdiha mbiyete félicitation e ziyaara o ceerno o feewi o wiyo ceerno bachir gonɗo ceerno bachir gonɗa holli ɗen dardal fof wonde ɓernde makko no ɗuɗɗo e ceerno bachir omo weltanni ceerno bachir haji Modou Moussa Kawtoré موسى المهاجر مساواة أركب المهاجر مساواة قوي فلله الحمد سلام ملناك تاريخ الشيخ عمر ملناك نانا إبليس يمكي فوف يمكي رابع هذا بجوم النبي bind naa ay leetar mais xam nga diwaan yi nga xam ne ñoo am ci Thierno Mountakha yi Thierno Mountakha daa yàlla mu ko sëddoon ay tur kon yaa ngi ci Fuuta kon yaa ngi ci Jolof mu ngi ci Mauritanie ñoom ñëpp la xam nga leen de li nga nekk ndaw ndaw yëpp si nga juddu te xam nga si nga màgg te xam nga dama lay yónni ci ñoom ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañu ànd daje Louga ñu juna ziyaare seen sëriñ Mountakha Taha man ci ñoom laa bokk ma bokk ak ñoom ziyaar bi ñu baax ñëpp جنرال اليوم لدى المغربي مجحد على ياتر استراك سيس ياتر فنوير كيلومتر ci ay xeet pël yi nekk ci biir alwaan bu ñu ko dem nga yàlla yàlla yaa ngi ànd ak Seydina Mouhamad yaa ngi ànd ak Cheikhana Ahmed Tijani sehemar ardimo sehemar mo jittiyon jaha jottoɗa e leɗɗi ɗi fof dadam yeddete xeet goɗɗine ko fof yëpp kala kala hen yeño bépp xeet totta ɗum o jox ko leetar mbiyaɓe ko ceerno ngani leen ceerno seydi nuur nelma moolen yonnitin ko ko ko almuɗo juuroto ne taaliɓe koye ziar si seydi limɗi جارية ما عندك تدير على بي ما يلبسي ما يفنانسي ما يدو ورنو ما ندم صوت دوتر خير لما سيد نور شيخ مرحبا حق خير لما خمر نوم يوم دمنا تنوم ودمنا Kalau ko ɗo tawɗa hen goto jàppee bis bi buñ ko jàppee. danañ ah, la wax ca rajo. dañu dem Louga. man ci sama bopp. man sëñ bi incha allah man ci ñoom lañ bokk. man itam maa leen garanti bu baax bi ñuy am ci Cheikh Oumar Fouti. est ce que ñaari weer. fukki fan ak juróom moo nekk ci àll bi képp ku ne ci ñoom ku ma xam ñëwoon xam ba ma ka dagalee ñoom ñëpp ma wax leen li ñu lépp lu ma tontu ma jël am naa benn manato

loolu laa def ba ñaari weer ak fukki fan ak juróom. ba ma dellu ci kanam si biir soxla. ñu ne àndoon ak si doon yoon wi. boobu bi nga xam ne ñu bis naa. mu ni soxna say ñëw ñu ko yaxyaa ñu bis na. mu ni ñu bis naa. mu yóbbu ba ci néegam. moo man ak moom ñaar ñuy fanaan ci biir néeg bi. rajo bi tekk suñu diggante ma ne ko xeetu nangam ñëw naa fa wax lii bisu nangam ci weer nangam ma fanaan foofu wala ma yenn foofu ma wax leen sa yëppante li ma tontu dégg mu ngi nii mu dégg mu ree bu kontaan ci loolu moom Seydou Cheikh Mar. min min min yoon bi ñu amoon ban jeexee. ànd nañu juróom benni fan muy déglu kasa. mu ne ma ñu war a judd sa kër. dégg naa de. ñaan naa. bu demee. bu koor dee. ëllëg ëllëg julli. dem leen Louga. nee na nee na nee na naa ne li ñuy. boo woo xeet yëpp. kawri ngeen denteji ɗum ngeen dendete ɗum ngeen denteti ɗum allah allah waɗi ɗum allah waɗani en ɗon yo allah dogolene ko noon ceerno murtada ceerno murtada da ceerno murtada ba ceerno murtada ba rahmatullahi aleyh o walli kamɓe jumbonenema cilon e leɗɗi ci xeeti ɗimo jiijiɗi yimo bokkal yëpp ko dari ña sat ñoom lépp taxawni ñu àndat moom jumbali ko ci min ƴetti oto ñu jël ay oto otoji ɗiɗi ñaari oto cinq cent quatre mo amal bo min indi ko fii andat ñeneen ñu ñëw دور مجموسي وجه حضارة من كون من دفين كان بشير مولو قتل مقتل من قتل مرافق من من جوتي هذا شارع من دبوش شارع سيد نور شارع سيد نور mbiɗa leydi tan ɓen waha mani liɗɗiɗi fof heedi yem wahdale ko noon wayane sama waha hesatudon dema bokkude joxma ci kenna ci jottu cheikh alhaji omar moy andal man mu xam ni lii lay wax ci cheikh omar la jóge ci yow kii dérëtu cheikh omar ndax man toll sama kàllaama mën nañoo bañ. buri. man Seydou Diouf ñoo doon wasatu Cheikh Mali de. ma jël ci kenn. ma ñëw ñëpp ci léegi ci weer bi dëkk bi. Lucien rek laa ko jëlee. si taay si Cheikh Omar. boo yónnee kenn. ñeneen ñi ñi ñu di sotal nga jiw. waaye comme loolu nga fa. demal sa sa mag bi. Cheikh Omar Moutaga Daha. jahatum nga dem ci mom alana nga wax ko bir mi ko mi da ko li nga wax ni ko subhana mu tanal la am ko mala ko ko ni mo ma la dul dara sa ko ma wa subhana dina la tanal mo ngon da da koy andal ci jotal subhana ni ci tanal ko ci Muhammadul Bashir ko ci Bashir ko seni ma sa xarit ko gidde sa sa marana te te onon bawo te yalla jubale na te minen te ma ko ko Jangan en yakkude seetlu ko si ñu ci ña ci yónneentam ci mel yónneen ci Thierno Bachir ñu dem ci Thierno mu tegale suñu ñaari loxo mu ni Thierno Yaxya yow yaa yore pexe bi Siapa muslim-muslim suruh bermuaman yang Mampu yurhinan Dakhtar Syekh Marah Jangan Allah ini Kadar ini dalil Sila teman yang sama ya Yom lem Kadar ini yang tufin ay dalil Sebesar dia dia Dia kumasa ziar Fofu ziar dulu mun woma ci cheikh omar de woma kareɓe homo tahaw o ɗi bobra o johat ɓe sirri ɗi señɗe cheikh omar tahawa dayo yalla taka wallate ziyara ndugo ci yitte sunu mam seydou cheikh omar ak tahawaye ceerno bachir to ɗi yëpp de ñowattite يبقى الله منا وحده وحدي تشعر زيادة هنا لدس مولي جيت لو فجر محمد سامس ومن كلي كبجان بشول كوي إن شاء الله همدي بوكو بخصر وحواي وهنا بولا لا تكرا بوحتي لو حمد اللهم صل على محمد ko ɗum addini ñagadema saabi ko andiyen ko min mi anda hen ɗum nene mi tax ceerno yahya wax moo taxoon mu ñaan ko ndax li ci ceerno yahya xam moom ceerno mahamad sallasa nena man xawma loolu hande o darsini dental ngal o darsini julɓe fof o andini julɓe fof ko gandani neena tawi dangal na hadara ɗi dangal na mbooloɓi haɓalnanen lo hamɓe ñoomti sen walla goɗɗo hamɓi ko dege noon timmi ɗo konngol makko ngol o tottunokam ngol ngol tottitmomi o haali ko nafa nee na mat na fii ndax sama kàddu bi mu ko joxoon moom laa ko delloo te ba ma ko ko delloo wax ko ci yoon bi. ni Kogolam wala cotti Ceerno Aliyu mel ne lottini Ceerno Aliyu Caam te Kogolam la. nee na sama kàddu man Ceerno Ahmed Samassa jël naa ko jox naa ko sama xarit sama cheikh muy Ceerno Aliyu Caam bu wóor yéen yàlla jur na leen bal ko mag ko yàlla yàq leen moo ko jur. Thierno Yaya nag yàlla yàlla guddal fanam yàlla ko yàlla may mu des ci sunu kanam yàgg yàgg yàgg. Mamadou Bachir yónni fii nii nar nii timmi nii yàlla yàq leen moo ko jur. Thierno Amadou Bachir baaxal la rafetal la wottal la taaral na yàlla ko yàlla desal sunu kanam yàgg. سوتوي او ari min konngol amin cottiti ceerno aliyu ko ceerno yahya haali ko min ndenndi konngol min ndenndi miijo mi weltima e ko haali ko nenaa ko ceerno amadou bachir tewe man awatomo kalbi sama kalbi joxnaama ceerno alfa aliyu thiam ceerno mouhamadou yahya yimo wax annda nan ci déglu nan ci kontaan nan ci amatuma ci kalbi kalannoɓe e taweɓe ceerno mamadou basiru ko mi haali ɗum on kaali ɗum galle cheikh oumar galle ceerno men ceerno haadi ɓe jettinannomi salminago mumen galle ceerno men ceerno oumar babali ɓe jettinannomi salminago mumen galle ceerno men ceerno ahmadou oumar woni wiro ko ɓe jettinannomi salminago men e galle dendagal ahlul bayti en heddiɓe toon e galle oumar ko hebbiniɓe to kala gonɓe omariya koɓe jettinan noon ɗum noon yettima on yettini ceerno yahaya yettini allahuma salli neena on kaddu ko ɗon jotal moye kaddu ko boto ceerno mouhamadoul hadi kaddu njaboot Cheikh Omar Ba Atali kaddu njaboot Cheikh Ahmed Omar Horini wa ak mboolem Omariya ak ahlu bayt rasul ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom de seen kaddu la doon jotal te nit ñi jotal nañu kaddu yi wax nañ ko jaaraat na ci sant na ñëpp gërëm na ñëpp allahumma salli ala Muhammad. Yàlla jàmm ñaan bésuma ko fee jóge nee na sunu baay sunu way jur alxaji xam nañ leen njabootam feeñ na fii wax ñëpp wax nañ ko ñëpp gis nañ ko dëgg allahuma salli ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyi kañum o yontinima kaɗo haala moƴƴi moƴƴi feewi yooɗi no ceer mahamad samas wiɗi fekke hen gandano ko yahatto ko jadi. Yes, sir. لسان مصر الشيخ أحمد التجاري الشريف سيد الحاج مالكسي ويرد بخير سيدنا التجاري من رسول الله مجرد سيد أحمد مالك من كلا لنا كلا لنا على هالعباد ويا الله ما قال لولا شكدان وي رسول الله بكيم على دخل على المال مين على الله شيخ الفوتي شيخ أحمد تجاني على المال على الله الحمد لله non kooku bu ay njabootam ñëwee fii yonente bi ci boppam moo tey alhamdulilah bismillah caam طلعت إليك الأقيام وابتسمت في لونها الأزهار وغير بحمد لغاته وخشعت الأصوات وفاضل من بيت الأمير الحاج ونعال من مولاه ما يحتاج واصطفى الله في الأفعال تعبدا للواحد القهار يا ولد الذين لا إله إلا الله كل خير الخلق احمد الامين وهكذا دار القران والصلاه ذا كله من فضل الخالق الانام جعلنا بما تفضل الله بجاه شاء ابن عباس باح الحكم كل بكل أولياء إلهي من فيدي قرا فيا لا لا yàlla feeñ ci yow ku xotti xormay yàlla yàlla nëbbu ci ci yow feeñal boppam ida lam tastaxi fasna ma chait tekkiwul lu la neex def waaye sañ nga lu ne Papa Bachir jëm ji may bëgg a tudd ku ko jeex ci sa jëm fekk ko ci mu Cheikh Seydi Aboubacar ibnu Cheikh Seydi El Hadj Mouhamadul Mansour waaye yow it ku la jeex ci jëmmam ja fekk ko fa mbir maa ngi dox te du tànk koo doxal borom mbir yee ko doxal te huwa allahu subhanahu wa taala mi ngi lay di la ziyaara di la ndokkee di la tàllal loxo xolam di sàkku ci yow ñaan ak di taataan yiwu bi ci sa dëggaay bu bii nga xam ni kenn ronuwu la kudul yàlla ak rasulullah ak cheikhuna ahmad tijani ak kamu roofoon denc ba ca moom te mooy kan cheikhul xaaji umarul fuuti sultanul aarifin صاحب الرماح البدوي إلى زيارة di la ndokkeel di ñaan yàlla moom Serigne Babacar Mansour mooy ñaan nee na sa ruux bi ëmb sa jëm yàlla na ko yàlla def ittisaal muttasilatan bi ruuxi jaddikum fi jamii tasarrufaatihi wa taqallubaatihi نحو جميع حضرات الله بلا انفصال ولا الانقطاع ولا الانقطاع بمزيد المدد دين بوكوي باخ دي في تاجي ييب دي بروم خام خام تاتاي يالا جيل سين بوم نوس نوس با نوي بن مو دنت لاكو يالا يالا بوتل سفر يالا يالا سخال سسخ يلا يلا لول سسوتور بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بني جوك دينيو في مين دانا لوحدي تنيان بي لسر بيتن سزيارة بي مني ما حبيب لما لي وحموي لشاعر بوخون te incha allah ca ngay fekk sa baay bu baax boobu dëje ko mate ko maamam di mu sàmm ci gannaaw te kenn ruuru ko la si góor ne ma innal kiraama وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم من يقول لتح من ما والأصل غلاب نينا إن الكرام نيا يالا نياغل هم الذين أولاهم الله مكرما وبشرهم نحن من من يخيف الفند دني ويا أن يجوت يعني يب من مثل بشر شلبك وإن ضاقت معيشتهم muni ma fo wo fek ak ñam doon dama fadilatuhum والاصل غلا نحن نوثق بيقول سين توقع تكن مليا من من بيت لله در اناس اينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وان غابوا لله دعوا الناس أينما ني داكور تي يالا يالا داكور تي رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه نينا نيو تطيب سيرتهم نينا سيرين بشير اك نيامو دون نولين دي توت با جامونو foo leen te xolul gaa yu baax ñi yëngatu ndax kenn ku ci nekk lañu tudd ci jëmm yooyu daa ca gis sa bopp gis ca sa baay gis ca sa maam gis ca sa njaboot xatta wa in gaabu doonte bisu tey bii sëriñ Bachir taxaw fekke wuñ ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sëriñ Cheikh Mouhamadoul Bachir délégation au président de la République son excellence ministre de l'éducation nationale cher Oumar avec le ministre Moustapha Diop du maire Louga président de ko de lu jëm ci wàllu euh, développé à Yakarou industrie ci nous avons le ministre Pape Amadou Ndiaye meilleur artisanat et transformation du secteur informel tant que gouverneur Louga préfet wu Louga ak mbooleem chef de service yi nekk ci région président de la république di sa doom di sa soppe di ku bokk ci kër gi bawoo fi léegi tamit ci bëccëg fi yabal ñu lay ñu yëkkati nuyoo gën a tedd nuyoo yi gën a màgg di ko teg ci sa loxo di nuyu tamit mbooleem njabootu Cheikh Al Hadji Oumar Foutiyou Tall di nuyu muxaddam yi ñu fi fekk boroom xam-xam yi ñu fi fekk ak nitu diine yi ñu fi fekk yëpp di nuyu taalibe yi ak mbooleem ku ñuy gis wala muy dégg suñu kàddu muy jaar ci presse bi ñu ngi leen di wax di teg nuyoo bi ci sa loxo mboole seen ñooñu ma lim ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuhu Serigne Cheikh Mouhamadoul Bachir président de la République, son Excellence Macky Sall premier ministre Amadouba, à les membres du gouvernement solo président Djok Ziarabi Mota, que tax service l'État, te loco, lu ci ziara bi président joxe na ci ndigal ñu sóobu ci te yaakaar naa ne li ñu dégg ci bëccëgu tey dal na xel ni ni ko bëggee woon jëm suñu kéem kàttan pour defee ko noonu bis bi nag bisu ziara la mu nekk bis bu mag ci niñ koy waxee la famille omarienne doon bis boo xamante ni taalibe yi dañ fi daje xam naa bu ñu mënee bind économie jërëjëf taalibe yi di fi daje di taataan leer yi fii bawoo ngir mën a gën a suuxat seen xol ndax bisu ziar nitu yàlla wala bisu ziar bërëb bu yàlla gërëm li fay bawoo ci ay ngëneel mooy yeesalaat jikko yi yeesalaat pas bi te loolu mooy li nga xamante ni moom la Cheikh Alhaji Omar Foutiyou Tall liggéey fii ci réew mi waaye loolu la liggéey ci penku jant bi loolu la liggéey ci soowu jant bi fépp koo xamante ni taalu diine waroon na fa Cheikh Alaaji Omar Fuutiyu Taal taal na ko loolu moo tax dundam def na ko ci xam xam-xam def na ko ci jàngale def na ko ci xeexal diine tey bu ñu mënee am jataay yu mel nii war nañu wax jërëjëf Cheikh Alhaji Omar Foutiyou Tall. waaye nag loolu daf ko liggéey bàyyi ci teg ko ci ay loxo yu wóor ñu ngi ko teg ci seen ay loxo sàmm ndonol yi ba ñu mën a teewee jataay yu rafet yi. di fi yeesal xam-xam di fi yeesal pas waaye tamit di fi taataan loo xamante ni ba déwén ak jàmm dinañu doy yóbbal ci suñu dund ak ci suñu diggante ak suñu ak suñu diggante ak suñuy morom loolu mooy solo moo tax ñi fi jot a yëkkate ay kàddu yëpp gis nañu li nga xamante ni sottil nañu ko ci xam-xam. fàttaliñu ko ci Cheikh El Hadji Omar waaye fàttaliñu ko ci doomam ak sëtam yu baax lool loolu sëriñ bi euh, ñu ngi la ciy sant bu baax ndax tey yaatal nga joxe nga kàddu ñëpp leeral nañ son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ci loolu la nekk ci wàllu li ko yàlla dénk muy wàllu état ci vous état lépp diine na ko ci programme programme de modernisation des cités religieuses Cheikh Omar jikko la tabax pas-pas la tabax diine la taxawal diine la président de la république xam ni kër yi fi la ñuy defaree pas-pas koom-koomu adduna amul njariñ bu ko jikko bu rafet lawul bu ko diine lawul amul njariñ te loolu yéen ko yàlla dénk mu doon doon loo xamante ni téye ngeen ko téye mu rafet. président de la république fépp fu taalu diine taal mu doon mu def ko waru war ñëw dugal fa mat ngir taal bi bañ a fay ci loolu ci la sukkandiku ba kër diine bi mu munti doon boo demee di nga gis li fa def ngir yar bi nga xamante ni yéen di koy yar njaboot bi di ko yar population yi bañ a booy mukk loolu nag moo taxoon mu yabal ñu fii ngir bokk ko teew ak yéen ginnaaw bi mu fi bawoo ci lu tëdd di gën a taataan xam na ni naka jekk ci loolu la nekk ñaan ngir gën a jàmm sax ci dëkk bi ngir gën a bennoo sax ci dëkk bi waaye ngir kaaraange ak naataange gën a sax ci dëkk bi damay bañ a guddal ndax xam naa ni toogaay bi yàgg na maa ngi sant bu baax. di gërëm bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuhu. Mountaga Daha Cheikh Oumar Fouti hankkadi ko kanko hedditi e konngol ngol no wii fof mbaɗiren ɗon inchallah ɗum tan heddi Cheikh Mouhamadou Bachir nee na mu ngi leen di di leen ziyaara di leen sant bu baax di jiital ci cant bi nag njabootu lislaam yi nga xam ne ñoo fi teew ak waa ahlu bayt rasul ak kéw diini ñépp mu ngi leen di sant di sant njaboot sa Seydil Hadji Malick bi ñëw fii ci xalifa bi yebal leen nee na mu ngi sant waa kër Serigne Touba xalifa bi Serigne Bassirou Mountakha moo leen yebal mu ngi sant njabootu Cheikh El Hadj Omar bi yëpp di njabootu boppam mu ngi sant itam waa Louga di leen gërëm ci taxawaay bi ni ngeen teeroo gan yi teral leen. ubbi seen kër jox leen toggal leen yàkkal leen lalal leen bi mu leen ci sant di leen gërëm ndax bu dul woon waa Louga ziar bi nee na buñ ko bëggee def fii dana wéy ne coono dina waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin dëkk yàlla boole waa Njaabu ñu mu bëgg Cheikh Alhaji Omar bëgg Muntaqa Taha bëgg Thierno Bachir ba tax jàmm bu feebar rek waa Louga ñoo la gàttal ñoo la teral bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla te di leen bàyyi ak yàlla ñu mën a fay yàlla na yàlla fay boppam bi nee na bu loolu passé mu ngi sant comité organisation bi nga xam ne ñoo taxawee ziar bi organisation bi ñoom ñu ànd ci benn kàddu maase jox ko Cheikh Tidiane Makki Muntaqa Taha bu Cheikh El Hadj Omar mu doxal ba tur bi si fii sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla leen yàlla fay li mu bëggoon yéen ñëpp ngeen def ko taxaw ngeen ci def ngeen sax ba lu def loo xam ne ni ko wér njort kon bi. mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yéen njaboot gi ci ci barke Cheikh Ahmad bu loolu passé mu ngi sant borom réew mi son excellence président de la république ndax président ci boppam jox na ko cër teral na ko yëg na ko màggal na ko nangu naa nekk doom mu nangu nekk nit nag boo xamul noo koy def na mu la dafa tax moo tax Thierno nee na maa ngi sant président di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal sutura bu baax a baax a baax di sant gouvernement bi yëpp teraanga bi mu def ci kër Cheikh El Hadj Omar defal ko njabootu Cheikh El Hadj Omar def ko ci jamono bi mu toogee ci xilaafu Cheikh El Hadj Omar Thierno nee na loolu teraanga boobu suur na la. leneen li lépp lu mu def defal na ko diine bi defal na ko tariqa bi defal na ko bokkam Thierno nee na maa ngi sant ministre de l'intérieur mi nga xam ni moom la président yebal fii te tey si suba ñëpp gis nañu président bu mu ñëwee indaale na ko mu ngi ànd ak moom waaye nag gis nga di cérémonie bi jeexee dafa dellu yitte bi président ci ziar bi yebalaat ko ci ngoon si mu ñëw ànd ak Cheikh Omar Anne ministre ànd ak maire Moustapha Diop ànd ak délégation gouvernement bi ñu ñëw jëmmalaat bis bi jëmmalaat ziar bi Thierno Bachir nee na teraanga la ak yëg la kon mu ngi ñaan yal na leen yàlla fay boo demee nga jotal ko nuyoo ak cant ak gërëm ak ñaan bu doqee ko ci moom ak jullit yëpp ak njabootu Cheikh Alhaji Omar yéen mu ngi lay ñaanal yàlla li la président confié confiance bu mu am si yow ba def le ministre de l'intérieur ak bi ak dal bi yàlla ko yàlla def lépp luy dal indi dal ci réew mi te yàlla nar ko jaarale sa loxo yàlla ci yàlla def jàmm def ci salaam def ci ndox mu set def jëpp te alhamdulilah incha allah yaakaar nañ bu loolu passé xalifa bi nee mu ngi sant presse bi presse bi tous les médias yi nekk fii mu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp def nañu direct ci ziar bi ndax moom luy sax moom. xamu ko woon waaye nag ku am ku juddoo lakk Cheikh Omar Mahamadou Bachir ci ay ndigal magam moo jox lii yëpp parce que tey télé bu dëkk ci réew mi tey sa caméra fii nga ko sàmm kon nag loolu sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yàlla barkeel météo di sant di sant itam mbugaan day dañ moom it ñëw na xarit la doom la ci kër gi macha allah ñëw la fekkee na bés bi fekkee na cérémonie bi sëriñ bi mu ngi koy sant mu ngi koy ñaanal bu loolu passé mu ngi sant gouverneur di sant préfet di sant euh, sécurité bi macha allah. benn problème amul ci ziar bi amul kuñ fi jàpp amul kuñ fi dénoncé amul kuñ fi yóbbu amul dégguñu fi dara benn dégât zéro dégât dañ mën a wax ci ziar bi loolu nag bu amee loolu li ko waral mooy engagement du ministre de l'intérieur jël pour sécuriser ndaamu sécuriser ziar bi sécuriser famille bi kon loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa presse bi Croix-Rouge eaux forêts sapeurs pompiers tubaab police gendarmerie yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen di sant itam doomam cànq gi dafa ko jël ci njaboot yëpp moom Thierno Bachir moo mii way ji mu gàddul boppam sant bi di sant Cheikh Tidiane Macky Mountakha Tall ndax ku yokkul wàññi te nit bu ñu la dénkee mbir responsabilité bi masculité kon nag yàlla dimbale na ba liñ ko dénkoon defar na ko ba ñu yegsi fii amul lu des lu nu kàddu xalifa bi Cheikh Tidiane ñu ngi lay sant di la gërëm say mag say rakk say doom ñëpp ñu ngi lay sant yàlla yàgg lii yàlla yàgg Cheikh na ñu rek la bëgg ndax moom fa tabaarakallahu li mu bëgg ñëpp ñëpp ànd liggéeyal islam ñëpp ànd ak taxawu lislaam ñëpp ànd ak jëf benn buubu mooy ci buubu yàlla bi ñëpp wuti si yàlla ñu dimbalante yërëmante warmaalante sagalante kenn ku ne loo tane sa morom ga dimbale loolu la ca ma am dëgg suñu santaane na ngeen jaamu yàlla na ngeen ragal yàlla na ngeen topp seen ay waajur na ngeen kenn ku ne bu ba nga jàpp muy tariqa jëm ci yàlla Thierno Mouhamadou Bachir nee na nga may bu dëgër incha allahu boo ca jàppee yoon wi dana la yeggale ci yàlla ndax turuq yi ko sos ay nit yàlla lañu ay waliyu lañu ñu yàlla gërëm lañu ba yàlla wan leen lil xaam ñu sos turuq yi kon ku ci jàppale moo incha allahu da nga موت حسن كباب فكل ولد يريد المريد لحضرة الله وبه إيبا سواء انتماء إلى الجيلان أو انتماء إلى أحمد التجان أو لسواهما إن كله قطع على السماء لم نبتي وفي على الأيام قلنا يتبور برب الأبباء نعم خلي زلسي سنين بمقلين جدًا نعم أم يار أم تنكين أم تنكين ni am kayfi nit nit day am kilifa day am fu mu sukkandiku bu balaa loolu da ngeen warmaal seen waajur yi ngeen teral leen ngeen dimbali leen ngeen warmaal leen bu loolu passé ngeen wut nag wasiya bi leen di yeggale ci yàlla ndax ñaanu sëriñ mu ngi tegu ci ñaan waajur boobu su amul ngërëmal waajur teraloo leen warmaal leen sëriñ bi même bu dee fanaan al arsh mënul dara ndax ñoom mooy li mooy fondation kon sëriñ bi mu ngi leen di dëkk yeneen da ngeen ànd ak dal ànd ak yar ànd ak teggin warmaal seen kilifa sàmm seen diine sàmm seen ngor te liggéey te bay waay ndax wax du faj dara liggéey ñàkk jëriñ sëriñ bi mu ngi leen ciy wax ngeen bàyyi ci xel bu baax bu loolu passé mu ngi sant délégation yu bàyyi ko Mali jikkee ko ci Halimatou Rassoul ak sëtu Cheikh Ahmad yi fa jóge yëpp sëtu ceerno no yetto on no jaarno on no duwono on no weltono on fodde ko ngar ɗon ko omo ardina noon e yettore ceerno makko ceerno cheikh mahamadou maka wari ñiw ko ceerno makko e ceerno nalla no nokku siré eko ɗin ceerno makko e ahmadou haadi mo ceerno haadi ahmad moutaha e denndaagal chomafaw e ɓumɗiɓe kuño kaari e ɓumɗiɓe ñoro e mani pop ɗo titiri e ɓesko hamme ñan ceerno ɗo yetto on no jaarno on yidde ɓe baamon yiɗi seydou cheikh omar ge yiɗi ɗe lamin bachir yiɗi ɗe ceerno ahmad oumar yiɗi ɗe seydou cheikh omar yiɗi ceerno moutaha yiɗi ceerno haadi yiɗi bés bi Cheikh Oumar hawride e yettade Cheikh Mahamadou Bachir haydara o bannani hen ceerno joonomo so jeeyi jotti noon yo allah hokkuma cellal yo allah ɗow balɗe makko ko juuti o ɓooya ardade ɓesgu ngu no allah addiri on e jamɗi yo allah nawtiri on noon jam taw yon jam goppan min e jam sëriñ mbi mu ngi sant Moustapha Diop bu baax maire bi ndax Moustapha Diop doom la ci kër gi lépp lu mu fi def rek du ko war la nit nag a dana la war ba pare doo ko def waaye jërëjëf a ak ñaar jege a la waaye bu ko jëfandoo ko dëgg sëriñ bi mu ngi lay sant di la gërëm yàlla yàlla dëgëral sa taxawaay lii waa lu nga am ci yow ba jox la dëkk bi yàlla bi yàlla tasal yaakaar mu ngi gërëm cant nag gërëm. doomam di Cheikh Oumar Cheikh Oumar bu ko sante Cheikh tanga sante bu ko gërëmee Cheikh Oumar Bachir la sante ndax moy Cheikh Oumar Thierno Bachir Cheikh Cheikh Oumar Bachir moy mom kon Cheikh Oumar Thierno Bachir no yettuma no jaarnoma ak waawno jeeyede galle he jeyɗa e ɗemɗo ɓe jeyɗa futantoɓe mbasa tan ha darde nde dañɗa kono sa wi dañɗa nde ɗo darde ka jeeya hen jeyɗiɗa hen hoore ma a jeeyama hen a jeynama hen a jeyni hen hoore ma ɗum noon yo allah yoɓe ceerno duwanimama kala ko président resnuma yo allah jogono on an e wontiɗe ma éducation pour des que là l'éducation la ñu gën ndax éducation mooy tabax réew xale yi ci lañ leen yar ci lañ leen di jàngal ci lañ leen tabal ci la ñuy dugg xam li loolu buñ ko dénk responsabilité gën ko diis kon ndaw ñii yàlla yor réew mi ëllëg ak ndar mi yow defar ci sa loxo lañ nekk yàlla la yàlla defal tawfiq ilaahi ceer na yëpp kii foofu ceerno yetti fof jaarnima fof onon pop onon fuutankoɓe yo allah yoɓɓe moƴƴere onon nootiɗon ko cheikh ma saabu cheikh oumar wi hoore mum ko cheikh oumar fuutide cheikh oumar fuuti noon kala mbiyowo mbiɓe wiɓe wimani a yii hen hoore ma ɗum noon hayso neɗɗo heɓani netan ari lowtino onon aynaɓe ɗe onon remoɓeɓe onon fulɓeɓe onon awoɓeɓe onon yeeyoɓeɓe onon sodoɓeɓe onon dartoɓe laabi oɗon mballa yimɓeɓe ɗarde onon foccihamdiyetiyo jarni e e on duwoni on o alana on hay hunde noon sona yo allah yoɓo e ɗum tan o jogoni on allah kadi ko kañum yoɓata ceerno ko ɗum tan jogoni on ala kalisro ko on ala ɗumoro ko on wiya on tan ko yo allah yoɓon te so wii ɗon o haaldirta ɗum ko ɓernde ɓuuɓde sabu o ko o ɓuuɓi ɓernde makko ɗum tagi o haala ɗum noon yo allah tabarakallahu euh, gouverneur men monsieur l' intérieur nga baal xam naa buñ leen bu ñu tuddee ministre l' intérieur sax ñoom ñëpp yóbbaale nañ leen géew waaye nag lii daf mënta ñàkk gouverneur Bouyamba ak préfet seen taxawaay ci ziar bi mucc na seede bi bi ñu def fii jël nañ ci engagement bu bi nekk ci dëkk bi bañ jógee fii dem Dakar lépp loo xam ni président santoon na nga taxaw ci sant ko gouverneur gouverneur sant ko préfet mention spéciale lépp jaar na bi gis na sant na ko gërëm na ko ñaanal na ko si sa kanam nga nekk seede nga xam ni li taxoon ñu indi ko ci jaamu def na ko li taxoon ñu teg ko fi xoolal sëriñ bi seen du teel rek kër diine ku fi xew la lii lay def lu mu defal fii noonu lay def kër Abdou Salim noonu lay def kër Mouti noonu lay def kër Sëriñ Tuubaa xaaral laay ñëpp lay def kon nag moom ndey di seex la jaaxal lay tëdd kenn ku ne mën a nàmp kon monsieur le ministre de l'Intérieur lii daal moo doon kàddu yi yoo xam ni du man maa ko wax sëriñ bi ci boppam moo ko wax Cheikh Mahamadou Bachir jaarale ko ci man miy doyal pour jotal amee lu ci baax lu ci yiw lu ci rafet lu ci mag ngeen xam ne jëmm ji waaye bu amee lu ci mag man miy doyal la ndax yéenam ak taxawaayam ak bëgg-bëggam ak himmam fi mu toll ci yàlla kenn mënu koo xam da ngay jéemal kon nag sëriñ Mahamadou Habib sa baay sant na la gërëm na la ak ñaan yu sell yu mu tibbee ci xolam ci barke Muntaqa Taha borom ziar bi sa baay yàlla na ko yàlla def shifa defal shifa am taam yàlla fukk boppam bu mu taxawaat naal bi mu naal ci kër maamam Cheikh Seydi El Hadji Malick ay magam ay baayam naaloon ko wàcc ko ci gannaawam mu téye ko yàlla ko mottalee sa bopp loolu daal bi ma nga wax Thierno Bachir xam naa ni lii ngant moo ko téye ndax wax na ma man sa baay Thierno Seydi Aboubacar wax na ma man bi ma àndee moom Fuuta mu ne ma Idrissa ma ne ko naan mu ne tey jamono ji ma toll sama yaakaar ci àdduna Thierno Bachir Gueye bi booba ko xam ñu ngi nekk Gollé rek mu dem maag moom ñuy ci nekk ñuy waxtaan mu ji jox sama yaakaar ci àdduna Thierno kon la ma ku ko jeex gis ci Thierno Bachir ku jeex Thierno gis ci Seydi Aboubacar kenn lañu du ceerno mahamado samasa ceerno alfahi ija ceerno mahamadou yahya ganden ceerno basir yetti on jaarnima on duwonima on nani haala on webtima e moɗo arde on tan o yi on joɗnono dental he juuɓeɓe ceeno on ceerno juuɓe yoni ceerno basir haala haalaka nonde kalɗon goto mon fo haaliɗo ko ganduɗa ko ceerno to woni o nani ɗum yii ɗum hettima ɗum yo allah yoɓon moƴƴere on tagui kadi fuuta yewede saabu ceerno kaɗa mi haali haalat ma wi hayyatu ceerno ahmad samas hayyatu ceernan faali jam heddi ko ah, hunde wawa hedde jonde nde fof cheri ibrahima sëriñ bi santanala gërëm nala tabaarakallaa léegi nag lenn rek moo des ci diggalu sëriñ bi ndax tànk boo gis day am jàppal diw mooy tax tànk ba leer te en lettre bu ñu bind day am adresse jotaay bu ñu sax deret Sayyidina Muhammad toog jëreetu Cheikh Al Ahmed Tijaani toog dëretu Cheikh El Hadj Omar toog dëretu Cheikh Seydil Hadj Malick toog ahlu bayti rasul nekk fa jotaay boobu ba ñu leen laajalee la ñu war a jot ñu jot ko dana tax kulloolu jotaay bi dana tax adresse bi mu am tampon mu am cachet lettre bi bu ñëwee kenn du ko delloo kon nag li des mooy ñu ànd ak yar ak teggin Cheikh Tidiane Mbacké Mountaga moo ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni ko ah loolu jox naa la ci digal kon nag da ko wax ngeen dajale addiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Mountakha mi ay sëñ Mountakha Bachir Mbacké délégation am ñëwoon na jotal nañu seen yóbbant ndéndi ngeen hade ya chérif aɓe ɓe tawana wonde deeƴa e ndewaari so gasi